ay ca arbitre bi sifflé na ci diggante Daabu Ndaw ak Yamou Sarr Daabu Ndaw ngeen jàkkaar lool Yamou Sarr moo leen woon ginnaaw daa mu ngi leewtoo def ay déplacement Daabu Ndaw ak Yamou Sarr Daabu Ndaw ak Yamou Sarr Yamou Sarr moo leen woon ginnaaw Daabu Ndaw ngeen jàkkaar lool ndaysaan sixième ko nañu jappante nañu Daabu Ndaw ak Yaamu Saar ñaari bari jappante jàppante nañu Daabu Ndaw ak Yaamu Saar Daabu Ndaw seen ndeyjoor Yaamu Saar seen càmmoñ Daabu Ndaw ak Yaamu Saar laa ilaaha illallaah Daabu Ndaw ak Yaamu Saar ku ci nek ngi bëgg jëma xëc sa morom ñu nga jëm ci saaku ya Daabu Ndaw ak Yaamu Saar Yaamu Saar door bu musiki ndeysaan tey samedi 29 avril mu ngi koy jéem a kal waaye mu bañ ndeysaan Sam woo fi Sam production Yamou Sarr ak Daabu Ndaw Daabu Ndaw seen càmmoñ Yamou Sarr seen ndeyjoor Daabu Ndaw ak Yamou Sarr oh Yamou Sarr daan na oh, daan na Daabu Ndaw Yaamu Saar a ngi noonu Yaamu Saar a ngi noonu ndeysaan oxo ndeysaan oh mu ngi noonu ànd ak coach am